ji bi eh, at mu jot eh, FMI gis ne dafa bëri lool eh, ndax fu bor public bi toll maanaam dette publique beeg dem na ba weesu 70 pour cent ci PIB bi ba tax na ni ci nguur gi ba bëgg a doxale ci wàllu subvention ñeel énergie war nañ ko mun a xoolaat càmbaraat ko doon na càkkute fu FMI Walf Quotidien duñu dégtal musiba ga am ca Malika ab góor gu màgget moo fa daanu Euh, ci ab bassin de rétention Gafane ba jaaree fa euh, ñàkk bakkanam ci anam yu doy waar Walf Quotidien yi tamit moo ngi ñuy dégtal euh, Sénégal Égypte finale CAN beach soccer ndax Sénégal dina jël juróom ñaareelu coupe googu am déet fas yéene jàkkaarloo ko pharaon yu Égypte yéen a kabi xëy ko leeralal ci xëtam bu njëkk. yéen a bi di Le Soleil mu ngi ñuy tegtal euh, tegum xeer wu njëkk mu ñeel classe préparatoire aux grandes écoles njiitu réew mi Macky Sall ma nga woon ca Thiès Thiès googee sax moo daloo tegum xeer wu njëkk googule eh, Sénégal di weer jéegoom jëm ci xereñ ci wàllum xam-xam eh, bokk na ci Le Soleil moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk eh, ne kuy wàlliyaan yi sa dëkk tegut la ñu jéegaani bitim réew ngir taataan fa xam-xam ak gën ko ñoŋal mun nañoo yem ci Sénégal doon na li sabab tey googu lépp eh, ay classe préparatoire ci grande école foofee ca Thiès yéen a kaabi di la mandat mu ngi ñuy dégtal xeexum troisième mandat ba tey pënd mi wureegu ca coow lagu gi fagul société civile ñoom eh, taxaw nañu tembe ne du fi amee Alioune Tine ak ay ñoñam wax nañoo ak njiit réew mi eh, Macky Sall président yow la ñuy déglu jàmm ak genn troisième mandat Euh, bokk na ci tamit ne du ñu seetaan mukk réew mi di takk bu ñu sukkandikoo ci société civile euh, le mandat yi tamit mu ngi ñuy degtal ay contrat d'armement euh, ci wàllub njëndum ngandaay ngannaay yoo xamante ne tudd nañ ci ay ministre ku demee ni Abdoulaye Daouda Diallo ak Abdou Karim Sall waaye nag bokk na ci ñu ngi leen di seetal ci coow loolu le mu ngi ci la mandat ngeen a kaa bi di 24 heures des ak ñun ci googule coow jëm ci contrat marché euh, ci njëndum euh, ngànnaay woto yaak yeneen ak yeneen euh, bokk na ci Cheikh Tidiane Dieye xam ne ci ministère gi yor wàllu environnement Euh, bindul ci document ba euh, secret défense euh, bokk na ci tamit avenir Sénégal gu ñu bëgg ne bëgg nañu dossier googee ñu mun ko leeral ca na mu gën a gaawee ndax askan wi bëgg nañu caa gindeeku 24 heures xëy dañu gindi ci ci wàllu troisième mandat jàmm gën lu ne moo gën troisième mandat bu ñu sukkandikoo ci Alioune Tine ne soxlawuñu fitna ci miim réew di Sénégal. Euh, yéen kabi di waa Grand Place euh, ci xëtam mu ngi dégtal euh, nataalu Abdou Karim Sall mi fi jiitoon wàllu environnement coow li ne coow booy jëm ci moom mu ñeel mbirum contrat. Euh, de fourniture d'armement ci wàllub ngànnaay ñu jënd euh, yéene cabinet nguur gi seetal na wecc Abdou Karim Sall euh, ci googule dossier bu ñu sukkandikoo ci Abdou Karim Fofana mu ngi ci yéene cabinet waa Grand Place yéene cabinet Libération ci xëtam bu njëkk coow li ne cobboy ci mbirum passeport diplomatique yu awul ci yoon diggante présidence ak affaires étrangères yéen cabinet ñañ ca tudd yoon dina leen euh, déglu enquête ba nag la mu fësal bokk na ci fukki euh, foo dossier ak ñeent yoo xamante ne jot nañ ko sulle ca présidence doon ay passeport diplomatique yu awul ci yoon ñañ ca tudd ak dossier baak fu mu toll yëpp daanaka libération ne euh, ci la yoon fas yéene gindeeku tey mu ngi ci libération yéen kaa bi di direct news xëy duñu gindi nganub njiitu réew Macky Sall démb ca Thiès am na ci ay responsable yoo xamante ne ay kàngam lañu ci APR daanaka kenn seenu leen ca ngan googule jotu ñoo askan wa ngir ñu mobiliser wu taxaw njiitu réew mi euh, Macky Sall euh, yéen kaa ci ñooñee bokk na ci Mbaye Dione Maodo Malick euh, mbay Alioune Sarr ba ci Habib Niang ñoom ñëpp kenn seenu leen ci ndaje moomule Abdoulaye Dieye mi ñu fal bees njiital ay BD Eh, moo fa woon yéen cabinet li tax eh, kàngam yu bari ci APR du moyu ndaje ma dañoo gis ne lépp la ñu fab jox ko Massaly ak jatara ay ndaw euh, benno ca Podor ne taxaw nañu ngir mayaat troisième mandat njiitu réew mi euh, Macky Sall yéen kaabi di turbine mu ngi ñuy dégtal euh, fukki organisation kuréel yoo xamante ne taxaw nañu bootu nañu ci société civile ne non au troisième mandat du fi amee bokk na ci ne lu mu mun a jur ci mim réew ci fitna Sénégal waru fa yegg jàmm gën troisième mandat mu ngi ci yéen kaabi di turbine yéen kaa bi mu ngi ñuy dégtal tamit ca Diourbel ab faux enseignant ab jàngalekat goo xamante ne jàngale na lu ëpp fukki at wala boog lu toll ci fukki at te googule jàngalekat amul lijaasa gi war ngir mu mun a jàngale ab faux diplôme la jot a jàngale ci diru fukki at foofee ca Diourbel mu jéem a feeñ turbine moo ñu ko xëy eh, jukkil yéen kabi di sa mu ngi ñuy tegtal rapport au Cour des comptes ay agence euh, pour la promotion et le développement de l'artisanat ADM mak ANACIM ñu jot leen ca tudd ci euh, doxalin gu awul ci yoon délinquance euh, double XL yéen kaa bi mu ngi ñuy dégtal tamit euh, Cour de comptes euh, jot na sulli jafe-jafe yi nga xam ñoo tënk réseau d'assainissement beeg euh, nañ ko doon doxalee awul ci yoon rëq-rëq ya ca am te ñu gis ne ONAS def caa laaj mu ngi ci yéen kaa bi di source agence nationale. Euh, de la case des tout petits euh, foofu yi tamit Cour des comptes jot na fa jukki lu bari ci lu dox ci doxalin gu awul ci yoon lépp nag doonoon ci kilifteefu Thérèse Faye ma ko jiite woon ci euh, jamono. yéen kaabi di l'évidence mu ngi ñuy dégtal ba jatara euh, mi fab euh, caabi Thiès euh, jox ko njiitu réew mi Macky Sall jëm ci mobilisation goo xamante ne jot nañ ko amal foofu démb l'évidence yi tamit mu ngi ñuy dégtal jàmm genn troisième mandat société civile bi dànkaafu nañu njiitu réew mi Macky Sall Biram fay bu APR jàpp ne nañu sàmmonteeg constitution bi bàyyi yoon def liggéeyam ci coow li ne coow ci mbirum troisième mandat. yéen a bi di euh, euh, réew réew mi quotidien mu ngi ñuy degtal wàllub contrat mu ñeel euh, njaayum gànnaay ak i tamit ki di fa yeeg na ci nguur gi seetale ñañ ca tudd lu waraloon ngànnaay yooyu le mu ngi ci yéen a bi nga xamante ne mooy réew mi quotidien fitna ga woon ca juma bu Sicap Karak. Euh, ñu ngi xool nees mun a def ngir jàmm mun fa dellusiwaat euh, kuréel gi boot euh, imam yeeg ulema yu Sénégal ña ngi cay addu yéen a kaabi di Sud Quotidien troisième manda la addu Macky Sall nag ma ñu ne warta bokk ca course ba warta bokk ca ñay warta doon wala boog warta bokk ca ñay dagaan baatu askan wi ci élection présidentielle yooyu le ndax jàmm génn troisième mandat manda Tine ne ñu ngi ci réew moo xamante ne pétrole ak gaz génn na fi. Eh, te ñaar yooyu le lu gaaw a tàkk la kon du ñu seetaan mukk eh, mim réew di Sénégal di takk jëppeet eh, nañ ko sàmm jàmm ji fi ne le vrai journal mu ngi ñuy dégtal troisième candidature bu njiitu réew mi Macky Sall am na fi ay société civile ay kuréel yi bootu si société civile jóg ne dañ ko xeex troisième mandat yooyu le kuréel seen dayo seen doole fu mu toll mu ngi ci yéene kabi di le vrai journal yéen a kaabi di laas ne ubbi tepp euh, classe préparatoire yi ca Thiès euh, samp nañ fa xeer wu njëkk njiitu réew Macky Sall bëgg euh, ñongalaat xam-xam ak gëstu ci wi ci Sénégal yéen a kaabi di Vox Populi Alioune ak mouvement Y'en a ñoom jot nañu avertir njiitu réew Macky Sall dànkaafu nañ ko xam le ne na sàmmonteeg ay kàddoom bokk na ci jàmm gën troisième mandat Euh, ne euh, du fi amee adunti nag ay ñoñam nañuy doxalee moo dëppoowul ak yoon Mamadou Diagne bu euh, APR mooy ki ko xamle yéen kaabi di stade mu ngi ñuy xamleeg mondial 2022 ca Qatar liste ya Euh, ñaar fukki joueur ak juróom benn ya bokk na ci fukki gayndeek juróom ñett euh, xam nañu xil ne daañu teg seen tànk ca Qatar mu ngi ci stade yéen kaabi suñu làmb Papa la xëyee euh, bokk na ci toog la lu tollook fukki at ak benn yéen kaabi ne ndax dina itamit dox ci kaw sitam det jaare ni nees defoon ndax sita dina dox ci kaw Papa Sow def ni nees defoon laaj la